ndax kenn ku suñu borom baaxee nga ragal ko yàlla suñu borom may na la ay mayu àddina yu yaato yaatu yu kenn mënta natable waaye may na la itam ay mayu alaaxira yu yaatu yoo xam ne kenn mënu ko natable ndax borom sant la nee na ci quran wal aqibatu lil muttaqin nee na mu jëntal ga mujjantalu mbir ya moom a chaque fois toujours ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla ñoom ñoo ko moom nee na mu mbir ya ñi ragal yàlla ñoom ñoo ko moom bokkaat ci li muhammad salaa salaam waxaat ci ragal yàlla mu ne inna akramakum inda allahi atqaakum nee na ki gën ci yéen doomu aadama yi moom mooy ki nga xam ne moom moo gën a ragal yàlla kon lii war naa tax ku nekk ci ñun njëkkante ci toolu ragal yàlla yi njëkkante ci nan lay def ngir mën a bokk ci jaam ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ragal yàlla ngir a bokk ci jaam ñi nga xam ne ñoom ñoo gën yàlla suñu borom nee na wallahu maal muttaqin man yàlla maa ngi ànd ak ñi ma ragal bu ñu demee surtout baqara dañuy fekk borom sontaala di fa wax lu am solo nee na alif lam mim zalikal kitaabu laa ba fii hudal lil muttaqin nee na téere bii nga xam ne moom mooy quran du jaas waaye nee na nag njub la ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal borom subhanahu wa taala ñu jël quelques exemple rek ci exemple ay doomu aadama yoo xam ne dañoo ragaloon borom subhanahu wa taala jël kii ñuy wax Fatima nga xam ne doom la woon suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bañ ko mayee borom kër muy Ali ibn Abi taalib keroog dañ ko mayee ci guddi gi ñu indi ko ci kër borom këram mu wàcc si muy guddeem gu njëkk ñu daal koy dugal ci. néeg bi nga xam ne fara war a war a dalee tey tey bu doon suñu jamono la fañ lay dalal day nekk loo xam ne looy waajal lay doon comme ni ñu ko xamee waaye moom mi ñu ko dugalee ci néegam mi ngi fa fekk benn basan gu lale ñu daal ko fay teg mu toog bi mu toogee moom jëkkëram moom borom këram Ali ibn Abi Talib rongo ji commencé tuuru Fatima commencé di jooy Ali ibn bi Talib daal di laaj Fatima ne ko waaw yow Fatima xanaa fi ma la wàccee da nga ko xeeb wala gii nga wàcc mu tuuti ah man day am wax deug yalla Fatima ne ko dedet yow sama borom keur nekul ne lol lay xalat motax may joy dedet waye li sama xel dem ba tax may joy mom moy da nga fay lampe bi léegi da nga fay lumière bi léegi neeg bi lëndëm sama xel daal dem ci lëndëmaayu bàmmeel lii la lay xalat mom motax may joy waye du fi ma wacce ñi ñoo ragalon yalla ñi ñoo don xalat yalla fépp fuñu mënti nek fuñu toll di ko xel di ko ngir bañ dee moo muhammad sallallahu Alaihi wasallam benn ba sa fek soxnam suñu ya aisha mu taxaw ay rongoñam di tour muy joy muhammad sallallahu Alaihi wasallam ñew laaj ko ne ko ya aisha ana lan ngay joy mu ne ko sama xel mo dem ci yowmal qiyam may joy waaye yow mo ya rasulullah dama lay laaj ndax yowmal qiyam yeen yonent di ngeen fa tal seen soxna yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dina la wax ñetti place yo xamne yowmal qiyam benn nit du fa tal moroomu doomu adamam mu ne ko yan ñetti place la mu ne ko kérok bu ñuy jéggi amul benn doomu aadama bu fay tal moroomu doomu adamam ku nekk sa bopp ngay tal li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yughni kenn ku nekk sa bopp ngay tal sa bopp daf lay doy sëkk ci kanam borom subhanahu wa mooy bu ñuy jéggi siraat yonent bi sallallahu alayhi wasallam décrire nañu siraat waaye xam naa du xaj ci fàttali bi tey dañ koy bàyyi ba beneen yoon nee nañ siraat moo gën a sew karaw fas moo gën a ñaw lanset te ni mu yëngatoo moo gën a gaaw jaan buñ gaañ te deewagul amul ci jaam ñi ku ci dul jaar ku ci dul jaar rek amul ku ci nekk dinañ la tegal siraat sa kanam nga war cee jéggi jaar ci moo tax bés bu mat a xalaat la yontu bi salaa salaam nee na képp koo xam ne amoo woon leer ci sa kanam wala sa jaamu yàlla baaxul woon boo yéegee kaw siraat da ngay daanu biir jëhannam ñu bàyyi ci xel bu baax Muhammad salaa salaam nee na yaa Aïcha siraat boobu bu ñu koy jéggi kenn du tal kenn mu ne ko ak fan mu ne ko fu ñuy joxee téere yi téere yi mooy yan téere mooy say jëf yi nga xam ne yaa ngi ko doon jëf xamal ne yow doomu aadama mbooleem kaddu boo génne woon sa gémmin mu xas see génn xamal ne noteel nañ la ko fenn ci sa téere bi ñu lay dencal yowmal qiyaam ñu war la ko jox xoolal bu baax li ngay wax xay haysumaa kunt ragal yàlla fépp foo mënti nekk ci li ngay wax ndax kàddu goo génn boroom santala nee na ci quran maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nee na kenn du génn kàddu ci làmminam lu dul malaaka yi ñu naan raqib ak atid dañ koy bind bu dee da ngaa saaga dinañ ko bind bu dee da ngaa xaste ko bind bu dee da ngaa ŋàññi ko bind bu ne da ngaa jëw nit dinañ ko bind ñu bàyyi ci xel bu baax feebar la boo xam ne dafa sonal sénégalais yi tey yàqamti wuñ loolu doomu adama romb la wan la ginnaaw nga teg ci daram loo xam te ni kenn mësu koo dégg bu ko defee malaaka yi tàmbale di bind ana kañ la la koy jégal kooku dem na dem am na ñoo xam ne danañ xëy bëccëg teg seen toggaay seen bundu kër di yendoo wax ba guddi jot ci ay deru doomu aadama ana kañ nga leen koy jégalu ñoom gisatoo leen dem nañ dem nga kañ la la ko borom sandaale fay mooy keroog bu ñu lay jox sa téere yi boo ko xoolee borom subhanahu nee na amul dara luñ bàyyi ci téere yooyu loo xool dinga ko ko fekk te lu la ci wan di xam ne sa jëf la woon kon loolu boo xalaatee bu ñu la jox sa téere war ngaa mën a xool li ngay dox lan la li ngay wax lan la li ngay déglu lan la li ngay xool lan la ndax borom subhanahu wa taala dina ko fay ëllëg yawmal qiyaam te kenn dox sa diggante ak moom mu ne ko Aïcha ak ñetteelu place bi mu ne ko fan la mooy mun ne ko fi ñuy posé jëf xamal ne yow jàmbi sa jëf yi ngay jëf ñu la koy dencal te yawmal qiyaam dañ koy génne teg ko ci balance moo xam tiyaaba yi nga defoon dañ koy gën a teg ko ci balance bu fekkente ni tiyaaba yi moo gën a diis bàkkaar yi nga dem aljanna bu fekkee say bàkkaar moo gën a diis say tiyaaba nga dem safara nii la ko Muhammad salaa salaam jàngalee nee na yaa sa ñetti place yi kenn du fa tal kenn yomal xiyam doomu ndey mbokku jullit yi jot na nag ci àdduna doomu aadama buy dund muy jékki-jékki di xalaat ci àdduna moom ana fan la jóge amul woon borom santaala amal ko moom ana fan la jëm borom santaala da kaa jox rendez-vous ne ko un jour ou di nga dikkaat ci man demal fu la neex defal lu neex waaye xamal na bés dina jot yow jàmbi nga ñëwaat maag yow ñu pencoo nga ñëwaat maag yow nag ñu régler suñu problème lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la moo tax borom soxlaal nee na yaayu lazina amanu taqu la xaqa tuqaati wala na illa wa antum muslimun yéen njoomu aadama yi ragal leen yàlla dëgg-dëggi ragal te bu leen dee bu leen génn àdduna mukk lu da ngeen nekk ay dëgg-dëggi jullit avertisement la ci yàlla kon yàlla nañu yàlla suñu borom may ragal yàlla kii ñuy wax Omar ibnul xool ko buur la woon mais xoolal na mu taxawee woon ca ragal yàlla am xoolal ni mu taxawee woon ci matam nga xoolal ni mu taxawee woon ci bàyyi xel gi muy bàyyi xel bés penc ba xoolal Omar ibnul Xataab keroog bañ ko joxee nguur gi dénk ko ne ko yaa jiite kullu kuy jullit ci àdduna ñu koy woowee amirul muminin xoolal ni mu taxawee woon ci ragal yàlla tey ñun lan la ñuy kaas ñun tey lan la ñuy kaas mooy suñu njiit la le sàngam njiit la le sàngam njiit la le sàngam dara soosu ko lu dul ñàkk ragal yàlla képp moom moo dox suñu digganteeg suñu jàmm yaram moom moo dox suñu digganteeg jàmm ci suñ société ak régler ko mun a cooc jaar fi nga xam ne fa la borom subhanahu wa taala bëgg xoolal Omar ibn Khattab daawul accepté di nangu moom mu nekk ci noflaay di noppalu ay nit nekk ci mbedd mi di nekk coono donte ka moom mooy jiitu jullit ñi moom Omar ibn Khattab xool ko danaan àtte ci jamonoom di àtte di àtte bay àtte fas yi daanu Sham lan moo tax ñoom ñu daanu Sham ndax ay yoon la yu ñu leen fa tegal wala ay ndëgg sërëx la ñu leen fa gasal daraan dem bay agir ci loolu ndax ragal yàlla gim ragal yàlla ne suñ borom dina ko taxawal yowmal xiyaam laaj ko ci loolu moom Omar ibnul Xataab benn bés kenn saxaaba yi day ñëw këram moom Omar ibnul Xataab daal di romb baytul maal for fa benn lu mel ni dërëm bi mu duggee kër Omar ibnul Xataab Omar ibnul Xataab di waxtaan ak moom ba yàgg ndeysaan waa ji daal jël xaalis boobu daal koy may doomu Omar ibnul Xataab xool ko doomu buur bi la ko may doomu njiitu jullit ñi la may xaalis boobu Omar ibnul Xataab ne ko fan nga jëlee xaalis mu ne ko xaalis bi dama ko romboon baytu buntu baytul maal fi ñi dañ seen alal rek dal ko fay for ma ñëwu fi dal ko may sa dom ci amaana bu fekkonté ni tay suñu jamono la day gis ne ki daf ko def pour neexal la kon ndagay contane ndax yow yaay jitu julit ñi waye bi mu waxee lol amirul muminin umar ibn khattab ci saasi dafa na beure juk taxaw dal di poñe waji ne ko yow ana lan nga ma bañé ana lan nga ma bañé ana lala la def ba tax ngay jël xaaliss bi diko may sama dom ëlëk yomal qiyam man na ko sama borom xolal ki fi mu tollon ci ragal yalla amna benn bëss benn buur ci àdduna euh, bi da koo da koo invité woon bi mu ñëwee këram ñu toogal leen ci table ñoom ñëpp ndeysaan ba mu yàgg ñu ne dañuy indi bernde yi jamono ji ñuy dugal bernde yi di ko teg ci ay plate di dugal di dugal di dugal di rangé ci table ba table bi fees ñu jékki rek seen Omar nu Xataab mi ngi jooy ronga ñee ngi tuuru buur bi daal di tourné laaj Omar ibnu Xataab ne ko waaw yow amiru muminin njiitu jullit ñi waaw yow ana lan ngay jooy xanaa bernde yi ma la berndeel nii da nga koo xeeb Omar ibn Khattab ne ko déedéet du lool de dama xalaat ne ñu ñoo jiite doomu aadama yi may xalaat ne est ce que nekkul ne xéewal yi ñu war a xéewaloo yomal xiyaam moom la yàlla jël di ñu ko jox fii ci àdduna lii de la sama xel dem moom moo tax may jooy ñii ñoo ragaloon yàlla ñi ñoo nekkoon di yàlla xalaat yàlla suñu borom ci bu ñuy wax di ko xalaat ci bu ñuy jëf di ko xalaat ci lépp lu ñuy def xoolal saxaaba bi ñuy wax Abu Darda nga xam ne commerçant la woon ku amoon alal la benn bés dafa amoon ay saxaaba yu ko seet si woon biir këram ñëw nekk ak moom ba guddi ñoom amuñu sax lu ñu sàngoo ndax seddaay seddaay bi jàpp leen amuñu luñ sàngoo ñu ne dañuy dem ci Abu dardaa laaj ko ne ko ndax mënu leen a jox luñ sàngoo bi ñu demee ba néegu Abu Darda daal di fëgg Abu Darda tijji leen ñu daal di dugg bi ñu duggee ndeysaan ñoom gis nañ ne Abu Darda amul sax lu mu lal ñu laaj Abu Darda ne ko waayow lan moo tax amoo loolu lal sax fii gisuñu fi dara te yow bu njëkk borom alal nga woon commerçant bu mag nga woon dencoon nga lu bari Abu Darda ne leen loolu yëpp dëgg la waaye dafa benn tukki bu ñuy waajal tukki boobu nag dafa sori. te dañuy bañ bu ñuy dem bagage yi ñuy gàccoo ci tukki bi di ñu diisal moo tax lépp lu ñu am rek ci ay bagage dañ ko fay yónnee mu ne leen tukki boobu nag moom mooy aljanna tukki boobu moom mooy yomal xiyam lu ñu am ci bagage dañ ko fay yónnee waaye duñ ko bàyyi fii ndax bu ñuy dem daf ñuy diisal ñii ñoo ragaloon yàlla fu ñu tolloon dañ ko doon xalaat xoolal kii ñu naan Omar ibnu Abdul Aziz nga xam ne moom njiit la woon ci jullit ñii jamono moom moo jiite woon jullit ñépp dafa tok di waxtaan ak ben xaritam ci palais bi ci kër gi nga xamne fa lañ ko dalal biñu ñuy waxtaan ñoom ñaar ci mbiru julit ñi ñi ngi talon ay sondel ñu kon na di waxtaan ñu jékki-jékki rek waaye am ji ne ko waw naka xalé yi naka soxna si mbaa mi ngi ci jamm naka ki di waxtaan ak mom ci mbiru soxna yak mbiru njabot gi Omar ibn Abdulaziz daal di fay liñ talon biñ ko fayé ñu kon seen waxtaan ba pare mu ne ko dama gis sank ba mu yag rek da nga dag li nga doon def daal di fay liñ taaloon continuer di waxtaan mu ne ko li ko waral mooy bi ñuy commencé di waxtaan maag yow ma bàyyi ma taal sondeel ya ma taaloon boobu maag yow ñu ngi doon waxtaan ci lu ñor julit ñi ci mbiru julit ñi lañ doon waxtaan ci mbiru jaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ci lañ doon waxtaan comme am nañ droit taal seen alal waaye bi ñu demee nag ba war a sama mbiru njaboot man sama famille sama soxna ak samay doom loolu nag amuñu droit di ci taal alalu julit ñi sama alal lañ ci war a taal moo tax ma fay liñ taaloon xoolal ñii ñu ragale tey ana ñaata ci ay alal ana ñaata ci ay milliards ngay lekkal doomu aadama yi tëdd di nelaw tiitoo sax ba tey seetaane nax na la ba bàyyiwoo sa xel xamoon ne bés di nga taxaw ci karam borom santala ana ñaata ci ay doomu aadama ñaata ci ay doomu aadama ñooy ci ay àq di ci tëdd ay ay nit ñoo xam ne seen waajur génn nañ àdduna nga jël alalu jirim ba lem lekk yóbbu leen tribunal wax a wax a wax a wax ba am dëgg ci seen kaw waaye xanaa xamoo ne alaysa allahu bi ahkamil hakimin la yàlla wax yàlla nee na nax nekkul ne yàlla moom moo gën a mën a àtte yéen ñi nga xam ne dañaa leen noot jël seen alal lekk ko jaay leen doole muñ leen xam leen ne bés dina ñëw yàlla suñu borom taxawal jaam ñëpp ci kanamam te bu boobaa kenn ku nekk di nga tontu yàlla dëgg dëgg tontu ndax moom mooy ki nga xam te ni dara ump ko woon moom yàlla dara ump ko dara musu koo ump moom borom sant la kon dara wóorul ci àdduna lu dul looy def na ko xam looy dox na nga ko xam looy dugg na ko xam loo dul dugg na ko xam la waykat bi waxoon rek nee na inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa xaaful fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها فتنا من يالا سن بروب امنا اي جامي موس يو ام خيل يو انتليجنت موتاخ تاي بو نوتو دي بروم خيل ولا ديو بوب لا ديو ديو بروم خيل لا ولا بوب لا ديو تيت لا بايل سا خيل سي لي لاي واخ تا دك دك دك دو تابي سفارا واي ديو بروم خيل لا ديو نانت لا ديو بوبا دا خوت fekk doo jëf lu dul jëfin waa safara xamal ne yow doo borom xel boo doon borom xel da ngay dëpp comme ni ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxoon da ngay dëpp daal di jàjju topp sa borom. na Muhammad sallallahu alayhi nee na ki muus dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki noot bànneexu bakkanam waa amila lima baadal moo daal di jëfal li nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw dee nee na ay nit lañ nag ñu muus ñooñu nee na dox nañ ci àdduna xool ko. te bañ demee ba xool àdduna xam nañ ne lii nekkul luy sax te ñun ñëpp xam nañ ne àdduna nekkul luy sax ku ci nekk ci ñun taxaw nga ba tàyyi xam nit ku la jege koo xam ne xëy nga bés doon ko gis ba mu yàgg gisatoo ko ku ci nekk ci ñun gis nga nit koo xam ne feebarul dara jotu ko génn ba tàgg waa këram di doxi soxlaam ñibbisi waatul ndax mawti fekk na ko ci yoon bi faagaagal ko ku ci nekk ci ñun gis nga ko ku ci nekk ci ñun nit tàggu na la di ami doom dem hôpital ñu koy xaar kin mu ñëw indaale liir bi mu des fa ku ci nekk ci ñun gis nga nit tàggoo tëdd nelaw mujj faa yeewu ku ci nek ci ñun yëg nga ni nit tagona na sport dem ba fa muy sporté dee fa ñibbi si waatul ku ci nek ci ñun xam nga lool kon ku ci nek ci ñun xam nga ne dund gi nekul dund guy sax seydana kay dadi mo lay nax ba yagal ko sey beut nga do fi mukk waye wallahi lu jegal comme li ko borom santal di waxe innahum yarawnahu baidan wa narahu qariba yow sen difference yow muhammad alaihi wasallam ak gay moy yow da nga japp ne yow ma xiyam lu jegal ñom ñu jappé ko lu sori ñu yalla suñu borom may ragal yalla Muhammad salaa salaam moom la daan sax di ko déggante ak saxaabatul kiram fu ñu toll xoolal keroog bu mu yónni Muaz ibnu Jabal nee na ko Muaz bu suba jotee na nga indaale sa waruwaay ak say bagage ndax dama lay yónni Yemen Muaz suba jot Muaz indi ab ëmb ñëw ba ci Muhammad salaa salaam daal ko koy wan ne ko yaa rasulullah mu ne ko naam mu ne ko samay bagage a ngi nii daal ko koy jox bi mu ko joxee bagage yi moom Muaz Muhammad salaas ne ko an sa warwaay mu ne ko aw ma warwaay Muhammad salaas salaam jël benn ci warwaay mi daal di jox Muaz ibn Jabal ne ko waral ci warwaay bi Muaz ibn Jabal daal di yéeg ci kaw warwaay bi Muhammad salaas salaam jël bagage u Muaz ibn Jabal yi teg ko ci kaw fas wi daal di téye ci ngalabu fas bi di ko gunge ne ko Muaz maa ngi nii di romb sama jàkka ji te Muaz wóoruma ba xam xaw ma ba xam wala xalaat naa ni wala njortu naa ni yow Muaz maag yow tey la ñuy mujjee gisee du ñu gisewaat ginnaaw at wi ñu nekk yow Muaz Moise mu ne ko naam mu ne ko xoolal sama jàkka ji ndax ëllëg boo ñëwee yow Moise ma nga ma koy xoolee mu ne ko Moise maa ngi lay yónni Yemen boo demee na nga leen woo ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ñu wuy si la nga digal leen julli ak joxe asaka yow Moise mu ne ko naam mu ne ko moytul ma seen teraangay alal boo demee te nga moytul ma ñaanu ku ñu tooñ ndax digganteem ak boromam amul kiraay Moise Moise ne ko naam mu ne ko ittaqillah xaysumaa kunt ragalal yàlla foo mënti nekk watt bi sayyi'atil hasanati tam'uha mu ne ko saa boo juumee ba def lu bon toftal ci ay jëf yu baax yu bare bari wa xaaliqi naas bi xuluqin xasan da ngay jëflanteeg doomu aadama yi jëflante bu rafet Muaz lii la Muhammad salaa salaam dënkanteeg moom daal di wananteeg moom ginnaaw Muaz dellu siwul biir màkk dund ne dañ ko tàggee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal la mu ko dénk ragal yàlla fu mënti nekk te yonent bi salaa salaam xamoon na ne ñoom ñaar du ñu àndaat ginnaaw at woowu te la mu ko dénk li gën a rëy moom moo yow Muaz ragalal yàlla kon maa ngi dénk di dénk sama ragal yàlla benn nit ku mag benn buur benn borom xam da ko mës a romb mu woo ko ne ko dénk ma ci yàlla mu na ko tey aw ma jot mu ne ko waaye dénk ma nu mu gàtt baax na mu ne ko tilqa xuburuhum wa zalika xusuruhum seen bàmmeelu gars yi de ñu ngi nii waaye seen étage yaa ngi nii tiim leen loolu rek dafa doy ci fàttali mooy ne étage yaa nii tiim gars yi waaw waaye seen bàmmeel yaa ngi ne ñu gasal leen ñu tëdd ci bàmmeel ya seen ay étage ñoo leen tiim kon nañ ci bàyyi xel loo mënti liggéey ci àdduna loo fi mënti dajale loo fi mënti am bés day jot nga wuyu sa borom bu dee defoo woon lu baax ah yow day perte nga bu fekkente ni ku baax nga woon ku sell nga borom santaala ne yow day ku mucc nga kon xam naa ni li ci jub ci borom santaala la jóge li ci dëng ci ñun la dañoon doon fàttalante ay doomu aadama lañ dinañ ko fas yéene yeggale ci émission bii di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.